pàncissé pàncissé nag ku ko dégg xam na yëfu cosaan la lu yàgg la depuis sunu maam yi ñu koy doon utiliser ñu koy soxla nag si cérémonie yu ne di ko soxla tamit si sunu dund. sër yi d'abord fu mu jugee mooy suñu suñu maam yi la jugee ñoom ils sont venus de la Guinée-Bissau euh, ils sont ils de la Guinée maintenant lorsqu'ils sont venus ici bah vu que ñoom loolu mooy seen habitude ñuy def lorsqu'ils sont venus dans les années 80 comme ça après certains sont sont lancés. si tisserand bi après ñenn ñi commencé ràbb wala foofu foofu la panc ci commencé mais li lii kii kii lu muy ràbbi ni si loolu la ñuy wax kol am na li am na col am na pantissé pantissé moom mooy def 12 euh, mètres bande bu nekk 2 mais sa vient de la Guinée. njëriñam parce que tout est euh, tout de l'art après tout est traditionnel y a rien qui est y a y tout tout tout de l'art après. Euh, njëriñam mooy que soo ko solee eh, mun nga mun nga ko mun nga ko defee bootukaay mun na ça ça peut servir beaucoup de choses comme couvre-lit euh, et cetera am na yoo xamante ne bëri souvent tailleur yi dañ koy utiliser euh, artistes yi tam yeneen yi dañ koy ñu bëri dañ koy utiliser pour sañse tout tout genre lépp loo xamante ne mun na dem si soline ou bien art mun na si ànd. en Guinée d'abord ñoom foofu en Guinée Bissau ñoom suñuy suul seen dëj yi série la ñu utiliser ñoom euh, c'est rare ñu utiliser cercueil ñoom série la ñuy jël utiliser ko pour muser suñu sel dëj yi mystiquement comme tu le dis bon am na ñoo xam ne gëmuñu ko mais dafa nekk loo xam te ne ça protège ça soo ko solee aussi euh, comme ni ñuy wax euh, ñu bëri ñoom foo soo ko solee ñu naan série comme ça ni comme on le dit suñu la liggéey yooyu noonu mënul la jàpp tout ça là parce que loo fa nekk loo xam te ne loxo moo ko liggéey loxo lu mu liggéey si euh, dafa nekk loo jafe euh, nit liggéey nit liggéey la si pour jàppale c'est c'est c'est quelque chose boo xam ne c'est proté c'est protégeant aussi ça mën nga ko utiliser partout si mooy si solin comme ma ko waxee rek si dëj yi si mariage partout surtout voilà ngénte yi exactement exactement souvent gars yi loolu lañ xam moo tax ju bëri ñu utiliser pâtissé loolu moo gën a nekk njëriñam dafa nekk loo xam te ne euh, c'est de la fait, qui est fait par la main. Rien n'est fait par machine ou bien tout est de la main. Euh, c'est pas aussi compliqué que ça. matière am déjà moo nekk nii euh, kii bi nii wëñ bi lañ utiliser wëñ bi soo jëlee wëñ bi ba mu mat quantité bu nga soxla comme ça huit falcon moom rek soo ko yoree rek moom mooy def benn saaj bi comme ça wëñ bi mooy def benn saaj bi lii a moom ngay def si gaal a commencé kaa ràbbe c'est pas aussi compliqué que ça. matière am lu yomb la wëñ moo koy ràbb te moo koy moo koy fabriquer tout ça. voilà euh, dama lay tontu foofu noonu fu nga daggee mooy que sa euh, bu njëkk ba ñoom seen ràbb moo gënoon diis moo moo gënoon diis te ñoom euh, comme nii suñu utiliser lii soo si utiliser huit ah ku si utiliser dix ku si utiliser dix bosom mooy gën a diis mooy gën a aussi dëgër loolu aussi ça ça compte parce que aussi tout est cher de nos jours les wëñ bi mënoo kaa soo ko soo bëree huit nga utiliser. day am différence ak koo xam ne utiliser na dix mais rab ça aussi dépendre na aussi si rab bi bu dee rab bu yaatu la wëñ bi su consommé wëñ bu bëri rek da ngay gis sër bi day diis mais li nga wax noonu auparavant seen sër ñoo njëkk ñoo gënoon dëgër ñoo gënoon voilà moo gënoon diis tamit. sër yi sër yi mën day dure sax mais comme bu njëkk ba ñoom seen sër yi mënoon na durer benn moment yi mais de nos jours sër yi Euh, mën na dure mais pas trop longtemps comme ni doon bu njëkk ba exactement mais aussi mën na durer à n'importe quel moment mun na yàgg. sant yàlla bu baax souvent ah, voilà comme ni nga wax jigéen ñi ñoo ñoo fi gën a ñëw chaque jour ñoom ñooy ñëw di jënd sër yi ñoom kon kon ni nga ko waxee rek. ñun ñu mën a jàppale mooy que clients yi gën a mën a ñëw rek parce que liggéey bi aussi yombul tamit parce que dafa nekk liggéey boo ne liggéey bu métti la mais aussi euh, lépp looy def rek soo si amee plaisir ak bonheur. Euh, à la fin du mujjee metti moo tax euh, lépp tout ce qu'on demande mooy que nit ñi gën a intéressé aussi paañ yi et paañ aussi c'est quelque chose boo xam te ne c'est c'est vraiment joli et te aar la aussi macha allah mu nekk élément bu am solo Ndeye Comba mu mel ni rek sëru rabal euh, baax yi dafa bëri lool. noo dafa bëri lool soxna Awa sëru rabal moom macha allah comme ni ko Mbaye Babacar di waxee léegi rek euh, dañoo bàyyi suñu baax yu bëri. Mhm. sëru rabal nag bokk si suñuy baax ndax suñu maay mi njëkkee ndeysaan seeni taati waxande dañ fa daan denc sëru dënk. Mhm. sëru dënk amaloon nag importance ba nga xamante ne nii parce que comme ni ko euh, suñu waa ji waxee si reportage bi rek mooy que ne. day protéger day protéger lu bari bien vrai que nag am na ñu bari ñoo xam ne gëmuñu ko mais sëru rabal day protéger si euh, maanaam si sa yaram. xëy na ñu bari sa dañ koo xamul yenn waaw yenn yenn liggéey yi buñ la ko defee parce que liggéey boo xam ne ni loxo lañ koy defaree. mu nekk lu am solo gis nga ñii boo leen gisee ay xale lañu mais xale yu am job macha allah. jóge nag dëkk ba dëkk ñëw toog fii di fi bay seen waar. Mhm. ñu mën leen mënoon leen jàppale parce que lii nii ñu def nii dafa am solo de ndax gis nga pagne tissé yi nii xëy na bu njëkk ba nañ ko daan liggéeyee sax mu daan nekk li kii sër yu diis parce que comme ni mu ko waxee li ñu daan utiliser si woñ xëy na bari woon na pour sër yi di diis ak yooyu noonu nit ñi ñu ko mën a sol mais léegi gis nga macha allah gis nga lii nii yëpp. Mhm. ay pagne tissé la mhm. lii yëpp te léegi c'est modernisé parce que la koy wax avant xëy na bu ñuy euh, amal ay cérémonie maanaam boo nekkee seet dañ la koy euh, muur. nga juddu maanaam cérémonie voilà boo juddoo. daf ñuy topp boo dëddoo àdduna waaye dafa mel ni léegi gars yi dañ koo moderniser ba nga xamante ni dañ koy commencé di jël di ko ñaw di ko def ay grand boubou di ko def ay veste comme li nga sol macha allah. Mhm. mu mel ni rek léegi gars yi ngi gën a bàyyi xel li nga xamante ni moom mooy. seeru rabal mu euh, ngi noonu parce que yow a indil ñu euh, lu baax. Mm-hmm. en fait suñu bien-être yëpp dafa war a delluwaat si. ñuy jëfandikoo cosaan. fi mu toll nii comme ni nga ko waxee ni euh, sëru sëru dënk yi daf ñuy topp suñu giir dund ndax boo juddoo nekk liir tey jii nii bu la sa bàjjen ñëw di. tudd si. Mm-hmm. il faut que moom sax dinañ ko muuree sëru kii yow si sa jëm bopp yow liir bi buñ la laxasalee sëru sëru oyof yi ba pare dañuy jëlaat sëru tënk bi teg ko ci lëmas la mm-hmm. ba nga macha allah nga neexatee nga xam ne duñ la gaañ duñ nga def dara ñu mm-hmm. ñëw jébbal la imaam mu tudd la mm-hmm. delloo la sa bàjjen mu dem toog ngay dugg si néegu sëy sa bàjjan day andu sëru tënk si liñ lay yabee sax si lay bokk. muur muuree la ko même buñ lay kii nga toog si digg lal bi dañ la ko war a muuree loolu ci yëpp nekk ay cosaan yu rafet yu neex macha allah yoo xam ne waa boo yoo leen di lekk laax seen njëkk bi ñëw tiimale leen ko mu ngi noonu bu ñu lay raamle da nga koy soxla. yooyu noonu yëpp te nekk na loo xamante ne nii yaakaar naa ni ethnie yëpp. soo tëddee nekk Sénégal waaw soo tëddee te te te xaalpulaar yi ñoom buñ la defee la koy muuree sëriñ Babal Kumba pendant une semaine. sa néeg doo génn moom ngay muuroo nekk sa biir nekk. voilà mu ngi noonu muy joolaa yi muy séeréer yi comme ni ko soxna Safiatou doon expliqué léegi mbër yi. Mhm. ñoom am nañ si noir et blanc nga wax ñoom moom la ñuy def comme ku si mel ni. manga manga. Mhm. dañ koy jiital loolu noonu yëpp parce que lu lay aar la mm-hmm. xam nga euh, Sénégal quoi qu'on puisse dañu gëm ay affaire mystique mm. mm. te wax dëgg yàlla xëy na tey jii nii boo ko jàppee ci côté religion loo wax ñu ne la bidaa la mm. mais bon loo xamante ne nii ñun cosaan la ci ñun aada si ñun dañ ko tàmm mu ñu doon andil nag ay bien bienfait wax dëgg yàlla yu nga xamante ne nii mën nañu génne ci yu bari ay euh, xat-xat yu ñuy nekk suñu yu ñuy jànkoonte suñu dund mm-hmm. sëru rabal yii nii daf ñu si doon génnee tey jii nii comme waa ji ni mu ko expliqué nee na ñoom Guinée Bissau au lieu que ñuy utiliser cercueil Mm-hmm. sëru rabat la ñuy utiliser ah, pour seen euh, moor yi mm-hmm. pour seen néew yi sëru rabat la ñuy ah, utiliser même fii Sénégal da ngay gis bu la kiiwee ba pare dañuy jël sëru rabar daal la koy muuree mm-hmm. bu ñu demee euh, denc ji la ba wàññeeku dañuy jox jigéen ñi ñu kiy jël sa fami ñu toog ñu jël kii tiimale leen ko nee na pour euh, néew mën la dëddoo ak jàmm ak salaam donc sëru rabat nekk affaire ba nga xamante ne daal macha allah macha allah mystiquement am na ay njariñ yu bari yu mu kii mais tamit lu rafet la si gis-gis lu rafet la si gis-gis parce que mm. tey jii nii comme ni ko soxna Awa waxee sànq rek mën nga ko sol léegi nii te sori sax dañ koy defaat parce que déjà yi moo gën a oyof mm. yu njëkk yi doon am donc mën nga ko sol à tout moment ma jàpp ne nag wax dëgg yàlla mën nañoo gën a jàppale ñi koy mm. defar parce que li ñuy defaree loxo te Sénégal fii ñu ngi nii amatuñu sax ay usines yuy defal tissu amatuñu mm. dara. donc nii facteur de développement la mën nañ leen jàppale. waaw mën nañ foofu laa doon bëgg ñëw sax mm. ndaxte ñii buñ leen gisee c'est un travail qui se fait à euh, donc bu fekkee ne euh, ce qui veut ni liggéey bi du gaaw. Mm-hmm. mais su fekkee ne euh, tabax nañ ay ay ay ay autopont tabax nañ train express régional. Mm-hmm. tabax nañ BRT ak ay aéroport ak stade mais mën nañu jublu nag ci leneen mooy industrie industrialisation. Mhm. ñu def ay entreprises yoo xamante ne déjà matière première bi am nañ ko ba pare. Mhm. de ce fait xale yi nga xamante ne chômage des jeunes bi nga xamante ne ñu ngi koy ñu ngi laam-laamee ñu ngi koy wax à chaque fois ba tax ñuy génn si mbedd yi ñooñu dootuñu amati jot na usines yi dox bu ko defee usines yu bëri dëkk bu nekk am usine ce qui fait que exode rural bi dootul amati mhm. et que liggéey bi dina dina dina baax ba pare peut-être bi ni mu doon chéré sax dina wàññeeku ndaxte peut su ñi nga xamante ne ñooy liggéey ci secteur boobu. mu ngi noonu man daal euh, soxna Safiatou li ma gis. Mhm. mooy que ne Sénégal mën nañoo bañ a dem jéggaani dara. c'est mhm. bu ñu jàppalee ndaw yi fi nekk. parce que mhm. quoi qu'on puisse nag ndaw ñi ñu ngi am jom de ñu ngi bëgg liggéey mais dañu gisul. ñu jàppale ndey euh, dogguma la ndaxte ah, euh, soo xoolee or bi Sénégal lay jógee. zircon bi Sénégal lay jógee. pétrole lépp phosphate lépp fii la. même coton même euh, coco bi ñuy jaay si mbedd mi des fois da ngay gis ñoo xamante ne dañ chinois yi dañ koy jël dañ koy xo xoox yi mooy euh, coco bi fii lañ koy jëlee yóbbu ko defar coco bi si boppam laa la de mhm. je je parle pas de li ñuy lekk mais xottu bi xottu xottu coco bi si mhm. boppam maanaam li si kaw li ngay njëkk a gis mhm. noonu genre dañ koy dañ koy jëlaat dañ koy dañ koy utiliser waat dañ koy transformé waat ba ba de ce fait dañuy am benn am na yeneen matière yoo xam ne dañ si fil yu dëgër dëgër mm-hmm. ñu yooyu fii lañ koy jaay si waatee au Sénégal mu ngi noonu jaay na ko nag ay kii yu cher ay prix yu cher ay centimètres ay centimètres voilà ay centimètres ay centimètres yu cher te hmm. pourtant koko bëri na Sénégal mu ngi noonu yow mooy gis nga soxna Safi mooy li ma wax sànq rek si sama njël benn wax gis nga cosaan dañ ci war a dellu mhm. parce que xam nga euh, jeudi bi passé indi naa fi leket mhm. gis nga leket boobu noonu bari na lu ñu ci mën a def bari na luñ ci mën a def loo xamante ne nii ñun mën nañu dimbali ba yenn bagage yi sax duñ ko soxla di andi fii Sénégal di ko utiliser leket gi kese mënoon nañ ko di utiliser si suñu waañ si suñu ay décoration suñu te dafa rafet parce que yow loo xamante ne nii yow da ko xeeb bàyyi ko fi mu nekk sa cosaan yow ñiy jógee bitim réew ñëw jël ko jekka yóbbu ko dem defar ko ay affaire yu rafet léegi yow da ngay obligé boo demee defi di mm-hmm. euh, kii say ay voyage ak yooyu dem jëndee ko si ñoom mu xam nga lañuy wax ni parfois ni euh, boo demee Chine dañu ne même bu sénégalais lalee fii di jaayee 500 francs hmm. chinois bi lal fii di jaayee cinquante mille chinois bi buy ñëw di jënd si moroomu chinois bi lay dem jënd pour hmm. lan ñoom seen ay waa réew foofu lay des mais pourquoi ñun suñu njiiti waaw pourquoi ñun suñu njiiti mënuñu jàppale mënuñu ñu jàppale pour ñu gën a valoriser ñun yi ñu amoon laa mhm. di kii léegi nag euh, bu ñu dellu waatee si sëru kii yi euh, be benn kii tamit bu am solo te xam naa ne loolu mbay Babacar dina ma si gën a andil ay kii mooy que ne sunu maam yi dañ daan jël sëru dank yi denc ko kii denc ko si seen taatu waxande yi mhm. mais nee nañ ku si mel ni euh, yow mii di jigéen di sëy moom sa sëru dank tey jii nii boo demoon ba xëy na tey sa borom kër am yenn problème yeeg yenn soxla yi ndax jamono boobu da cher da nga koy dem génne de wecceeku ko ñëw jàppale ko ko donc kon ma jàpp ne sëru sëru rabal yi amoon na vraiment euh, amoon na njariñ mhm. si dund sunu maam yi ak dund sunu yaay yi léegi nag dëgg yàlla mbay Babacar ba xale yi uh-huh. boobu lañ doon wax ne boo boo ko muuroo également mhm. nga nga ñaan ci sa soxla mhm. wala wala malikaan bi ah, wala malikaan bi la mm. comme par sër bi nga xam ne moom moom moom nga tëddee sër boobu moom lañ daan jël ñaare di ko denc ngir boo demee ba sa sëy am jafe-jafe moom la amee solo malikaan boobu boobu boo paree da nga ko daan defar ba mu jekk nga daal koy denc xam ne boo demee ba sëy bi am ay jafe-jafe saa yoo tëddee ba guddi nga jàpp ba set woddoo ko loo ci ah, ñaan ñaare mhm. suñ boroom may la ko ci sa wàllu sëy mhm. sëy bu neex sëy bu barkeel njaboot gu baax njaboot gu barkeel waaye sër sër yi tamit nga xam ne sëru dënk mhm. euh, bu njëkk valeur bi nga xam ne amoon na ko mhm. nga xamante ni dayo dayo bu mag comme ni nga ko waxee ñaare daa nga gis euh, boroom kër bu jigéen boo xam ne bu demee ba jamono naqari da ko daan jël sax tay la ko mhm. ñu ñu ñu ñu lebal ko xaalis walla dund walla dara ba jamono neex ñu jëlal ko euh, nga gis même sër bi nga xam ne moom nga daan muuroo ci sa boo sey sëy même sër boobu soo masaana dem ba jamono ay xat-xat dab la boo masaana jël sër boobu muuroo ko julli ñaan sunu borom mm. say say soxla yëpp yàlla def ci sutura mu saafaraw bari na lu mu daan lu mu daan jariñ bari na ci ci wàllu dund nga xam ne sër la boo xamante ni ni mu bare ay ay wëñ yu ñu yu ràbbale ba sër bi nekk ci wirgo wu nekk nag maanaam couleur bu nekk noonu la njariñam bare ci fànn bu nekk euh, wàllu wàllu cat wàllu saytaane mhm. wàllu jafe-jafe